njaago yi sa mbokk yi dañoo man xaw ma dañu war ni ñu. déedéet dañu war a a régler seen bopp. il faut ñu régler suñu mbir. Или дара, дара, дара не учи. ko min jaɓata ɗum o ñama ɗum e pakke ke ka o kala ko leyɗamo nana ley eyyi mi famnotemo ala famnotama ɓay dara kalɗa fof wayanno owa ñamna ko mba ñamna ko ñamna ko ɓayna ko amul fel yappa ko bis a yo kan bana fel moyfude ɗi fo a wey ñamna ko ɓayna dey ñëw dey ñëw dey ñëw Nebalima. yow keroog deme naa lu fonde fii nga indi ma isuwaari fii te kii mu ngi lekk mburu lu tax doo ko wax foofu Mamour armi ma armi heewi yi ma adi heewi yi ma kaw wallaahi ñam naa ko bàyyi naa ko amul fenn waaye nag lu waay def sa bopp waaw ah dégguma ma ñime barki rasulillahi mi jaɓata ɗum hannde mi wawan jaɓde ɗum ñande ñande ete mi jaɓa ɗum hannde mi wawa wonde hannde mi haaldete e makko kaw hara haalde makko kaw pourquoi ça hara damay saga sama magɓe de ham non dama leer wak damay saga léegi euh, sama mag te bugguma ko saga dama he he hawma champion hawma mbir la hawma Modou Lo mi moom tey doon wax keroog fal mi kay dafa falum bukki la li ma waxoon keroog laay waxat man kay champion champion champion yow laa wax soxla naa la deux secondes kaay deux secondes kaay kaaw kaaw kaaw mooy mooy mooy waay waay waay waay ngóor si bul ma affaire de waay nag fɛsɛ wa yɛ o ayi dɛ dɛ fɛn wa hali k'i na dɛ dɛ dɛ sama sama kala comprend pas ayi rek ma wax la parce que xam nga nit bu la rusé nit bu la rusé da ngay xam moom def la ki mun na la rus nga foog daf la ragal fekk ragal teg si pakk bi loi loi bu nga xam ni damay tere ku lekk si pakk bi ku tux si paka bi ak waxi waxi caga yooyu est-ce que dégg nga léegi nag yow nag man deme laa ruus mais sa mburu bi ngay indi si pakk bi ni ñuy war nga tiim leen di lekk mburu bi moom laa mënul accepté si paka bi te il faut mburu bi da nga koy arrêté mi waawaa jabaade lu doon na tuppee sa woow yaa may dégg man champion yaa man woowu ma yaa ma dégg ku nekk na tuppee sa bopp doomu na dañuy tuppee sa bopp moo gën yéen wax yëpp amul benn sens yéen wax amul benn njëriñ gëmal sa bopp ma gëm sama bopp yow woo ma ko wax sax. yow bu ñu koy wax. yow xanaa xeex nga bëgg léegi. oh yaa xam yoo bëgg ma defal yow ma defal yow yow yoo bëgg yéeg yow. lekk biir laa bëgg nga bàyyi ko. mënu ma ko bàyyi mënu yow léegi yow xanaa léegi da nga bëgg ñu dem si yoon si police wala si gendarmerie nga bëgg léegi yow. man yow du ma àggat yow foofu man yow du ma àggat yow foofu man tam ñu kee nee nekk si nijaayam ñu nekk sama nijaay. waaw waaw nan dem waxee. non non oui non non non non oui non non non non non non non non non non bàyyi de non non non bàyyi falten dijay kan uh, café wo def am ben mi ci wel ka am am ka e ko ci am ci mi ci mais do mo dagal yow ben ben waaw waaw dina wor bu ben foko tek fii sama kër la koy fii Ben benn moo nekk moo di daw fii di benn la da ngay def kafe am kafe kafe kàngu sokopin man tam jiwal ma sokopin rek. dëgg la tey sokopin bi rek nga may jiwal. waaw sokopin kas. waaw. bu dul bu dul jafe ñaar bul forcé bul forcé oh bul forcé voilà voilà xoolal xoolal wér na dinaa woor suba ba ngoon di lekk benn mission bi. ma. moom ma defaral ma. suulaay doog jot na man bési ba dégg fàlle. lii. hey suul naa. ah defaral ma li mu bëgg dafa yomb. waaye kon sa papa da ndogu moom nii la mel moom dafa siis.